ci ci bi incha allah dañuy seen bopp ci menace la. parce que man man ah, booy parcelle lii dafa la kéemaan la. parcelle waaw ñu dem Pikine ñu dem Pikine Mortala. waaw Mortala Ndaw sa gobe moom def na plaidoirie yu personnel wu ñi liggéey Ila Ila Touba yow Mortala Gueye nga ñëw fii tey def plaidoirie waa Pikine dix minutes de Pikine lan mooy dix minutes de Pikine déjà. ah dix minutes de Pikine. ak lan moo ko sabab. lu ko sabab mooy tey ñun ndaw Pikine yi dañu tool ne tey jii nii dañuy xool ne cinquante 52 ba léegi. Mhm. dara changé wu fi. 1952. ba léegi ñi deewoon ñu suul leen bu ñu yeewoo dañuy ñibbi seen kër. du ñu laaj kenn. kenn du laaj kenn bu dee guddi la Alsaan Jugo la ñuy romb fekk làmp yi tàkk ñu ne lii de lu bees la fi loolu kese moo changé Pikine. Ah, ñu toog am na arène nationale am na pont bu bees bi nekk booru fële. xoolal jàkkaarloo ak affaire buntu Pikine. Pape am na am na am na garage boo maraicher. Pape am nga am ngeen ay affaire ah. Pape Seydi bon maraicher arène fay liggéey du ñooy Pikinois. xoolal bi affaire bi. dama ne bon maraicher. Mhm. ak arène ñu fay liggéey du ñooy Pikinois. Ah wala Pikinois bi liggéey benn moo ciy nekk. léegi yow yeggali wax sànq. a ñëw si li Pape. waaw comme ni ñu koy minutes de Pikine slogan bi lu ko tax a jóg ñun jeunes yi ñoo dajaloo ne tey jii dañuy taxawal suñu gox lu ñuy nekk nekk ay sénégalais ñu sentir ne tey jii nii Pikine dafa bëri li nga xamante ni dara changé wu fi moo tax ñu ne tey jii nii ne ñu jël suñu yóbbal ñun waa Pikine yemale ko ci 10 minutes 10 minutes nag mooy loo xamante ni ci la ñuy waxee li ñu neex ci Pikine wax ci lu ñu naqari ci Pikine te boo xoolee tey jii nii Pikine comme ni ñu koy waxee jeunes yëpp dañoo mbooloo boole seen kàddu ne tey jii nii 10 minutes de Pikine bi mën na régler situation wu Pikine moo tax ñu tuddee ko 10 minutes de Pikine deux mille trente deux zéro chômeur xam nga zéro chômeur sax sax bu ñu ko waxee lu mënta nekk ba jeex tàkk la mais tey Pikine boo xoolee tey jii nii dañ fa nekk nekk ay jeunes mais la fa manqué dafa bëri trop trop trop trop trop boo déggee la fa manqué dafa bëri trop trop mooy côté emploi jeunesse bi la majeure des Pikinois sont des chômeurs te loolu noonu li ñu naan tey mënoo wax sécurité te nit ñi amuñu xëy. xam nga sama copain um, um, Morta la mi ngi wax wàllum xëy ñoom am nañ xëy sax ba am lu leen ci metti mais ñun dañoo amul xëy sax bay wax lu ñu metti ak tey jii nii li nga xamante ne mooy environnement Pikine tali yi fa nekkoon ñoo fa nekk année cinquante deux ba léegi dara changé wu fa amuñu camp sapeur préfecture sax Pikine amu ko. Pikine amul camp sapeur. amul camp sapeur tey jii nii yaa ngi wax waxu arène national on préféré ñun Pikine waaye ñu defal ñu fa camp sapeur ak camp gendarmerie moo ñu gënal ñu indil ñu fa arène nationale. parce que tey jii nii boo xoolee tey jii nii mooy gox bi gën a tardé ci gox yi te moo jur Géejawaay jur Parcelles jur Kër Massar ñooñ sax ñu ngi avancé bàyyi ñu fi. Kër Massar su ma xoolee Mortalla Pikine mais Pikine nag am na yu bees su ma juumul amul dara. mais bi li ma daal Pikine mooy Pikine am na entreprise yu bëree bëree bëri nekk autour de Pikine. diggante croisement Cambérène ba Kër Massar y' a plus de vingt sept entreprises. waa léegi nga ne chômage dafa am Pikine. mooy mooy mooy banlieue bi gën a bëri chômeur ci àdduna waxuma la sax ay ay ay Afrique àdduna laa la wax mooy banlieue bi gën a bëri ay chômeur boo xoolee tey jaaykatu kafe yi bari fa loolu noonu lépp ci xeetu chômeur la parce que ña fay toog di naan café fukki dërëm foofu la ñuy mën a dem pour soulager wu ci te loolu du yoon mm-hmm. te tey jii nii ñun dafa am loo xamante ni daf ñu metti ñu koy réclamer 2019 ki nga xamante ni jii mooy président de la république Macky bi mu ñëwee Alassane Djigo dafa promettre un million d' emplois yoo xamante ni da koo diggoon Pikinois yi mais gisuñu ci dara te tey jii ni Pikine boo xoolee douze communes la ci biir douze communes yi y' plus de un million sept cent ci population boo xamante ni dafay màgg kon tey jii ni war nañ ñu geesu jox ñu luñ moom te loolu noonu Pikinois yi dañ ko réclamer de gauche et de droite léegi nag ñun ndaw ñu ñoo jóg pour Pikine changer par force te comme ni ñu koy waxee dinañ ci dem jusqu'au bout jusqu'au bout dinañ ci dem parce que ñu ngi dajaloo jeunesse su Pikinois yëpp ñu ngi dajal lu commencé ci douze communes yëpp fu ci nekk am nañ benn représentant boo représentant boo xamante ni pare na pour ñëw ànd ci combat bi. parce que yow li nga ni département de Pikine la. non yamul Pikine daagu daan parce que ñu waxee Pikine daagu daan mooy sept communes yi. Mhm. mais département bi la waxal ñun. waxaluñu tey jii ni boo xoolee tey ji jii ñu benn gox rek wala benn koñ dañuy wax Pikine banlieue bi yëpp mooy douze communes yi nga xamante ni moo moo moo géré commune Pikine. waaw Mohamed. lan nga mën a yokk si li nga xam ne ne moom moo taala moom la wax léegi Pikine soo ko déggee da naan non Pikine Pikinité non Pikine dafa neex Pikine dafa kuul Pikine dafa neex dafa cool. mais Pikine. man ñii xaw ma fan lañ dëkk ci Pikine mais war nañ leen abal ay verre ah ñuy gis. <laughs> Pikine naay ah. ah, sax man de mën naa seet moo de amul pikin lu muy wax muy si cadre yëpp parce que jokkoo ak Macky moo taala moo demoon ne woon porte-parole lu moo jëloon kàddu wax au nom de la jeunesse pikinoise loolu moom maa ko sa daan Mohamed lan nga mën ado après nag nga ñëw si loolu Mohamed lan nga mën a yokk comme argument sur les dix minutes de Pikine ak li Mortalla waaw dix minutes de Pikine yi moom euh, concept bi li ko tax a jóg lenn la quoi dañu gis lu nit ñi doon wax ci suuf di ko murmurer ci suuf Pikine yëpp foo dem ci Pikine amoon nañ benn cri de cœur mais kenn waxu ko ci kaw ñu koy murmurer ci suuf ñu nekk ay ndaw nekk ay jeunes juddoo Pikine ñun def nañu soixante-dix ans man personnellement sama famille def nañu soixante-dix ans Pikine man 1952 lañ tuxu Pikine ñun sama famille quoi sama maam ma nga armeeru Pikine ñu suul samay waajur ña nga fa kon ñun ay Pikinois de souche lañ kon li fa metti ñun xam nañ ko mais dañu gis ni population bi tey ñun dañoo dem ba xam ni ñoom foo toog ñu ngi murmuré benn affaire Pikine dafa dellu ginnaaw Pikine dafa salte insalubrité moom Pikine la fekk baax insécurité waxaale wuñ ko Pikine lëndëm na Pikine souffre de tous les maux parce que bu ñu nee sous-développement dañ naan c'est une ensemble de manque de manquement mhm. Pikine nag bu ñu nee manquement pikin la fekk baax mhm. parce que dañu xool ne Pikine moo ëpp jotaayu jeune ci Sénégal mhm. Pikine ngay yeewu huit ba midi bopp koñ boo dem di nga fa fekk lu mat vingt jeunes ñu toog naan ataaya wala naan kafe parce que Pikine bëri na ay jàngkat nag mais dañuy jàng ba yor seen i diplôme ay licence master nangam nangam du ñoom liggéey ñenn ñi ñooy dem volontaire jaay kafe ci bopp ko ñi bu ko defee benn jaaykatu café boo gis téeméeri jeunes ñi ngi fay fréquenté te jeunes yooyu nga gis comme li a wax jeunes yooyu nga gis ñuy fréquenté ci jaaykatu café yi ñëpp ay chômeur lañ te pourtant bañu ñu liggéey de parce que tey jii nii ku sañoon benn âge balaa nga koy am mu nga jàpp ci lu dëgër dëgër mais nit ki doo ko jàngloo ne ko sa laaj bi ba nga ko war a jàng mu jàng ba am benn âge bi diplôme yi ko état laaj yëpp mu am ko téye ko léegi moom fu mu demandé pour am stage sax stage pour mu am ko sax problème la mais kooku tey bu toogee ci bopp koñ bi liggéeyul nga bëgg ko jiñ ñàkk jom yaa ngi koy tooñ parce que kooku noonu laaj fam yëpp daf ko jàng amul métier jàng la xam te loolu moo bëri ci suñu mouvement bi cas yooyu da cee bëri ak jeunes yoo xamante ne ni ñoom xëy na ñu ngi woon ci leneen dem ba gis ni ñoom tey jii nii nii nii war nañ mën a changer vie Pikine bëri na pàqu saret dawalkatu saret te loolu état bu bugg indi ay saafara dëgg dëgg dëgg dëgg ci Pikine non pàqu saret yooyu noonu pour rek protection des animaux da nga may récupérer saret yi moto trois roues yi ay étranger rek ñoo ko yor Sénégal nañ ko wax ay étranger rek ñoo yor moto trois roues yi nañu récupérer saret yi nga xam Pikine am na plus de cent pàqu saret pàqu saret bu nekk plus nangami jeunes ñoo fay nekk di dawal saret te gis nañ ne dawal saret am na ay inconvénients parce que da gis ay xale yu bëri seen yoonu dëngate mu ngi jaaree ci pàkk waxuma nag borom pàkku charrette dëngate ma fa am mais lu ci ëpp dëngate bi am Pikine ci pàkku charrette yi lay tàmbale mais doo ma récupérer charrette yooyu noonu jël ma de trois roues yi formé booy jox leen ay permis yoo xamante ne mën na gérer ñu ñu ñun liggéey bu ko defee violence dina wàññeeku insécurité dina wàññeeku parce que ñun ñoo xam Pikine ñun douze communes Pikine yi yëpp. xam nañ ñaata quartier fa nekk xam nañ chef de bu commune bu ci nekk xam nañ chef de quartier bi mooy kan parce que ñun ñoo maîtriser Pikine mhm. tey jii politiciens yi damay seetlu benn affaire ñoom bu ñu soxla parce que Pikine dafa am benn poids électoral bu doy waar mhm. parce que population boo xam ne mën nañ un million ak quelque ñooñu mën nañ fal mën nañ folli mais dañu seetlu ni depuis président yi fi mus a jaar yëpp amul ku mus a ñëw laaj Pikinois yi dara muy sa carte Pikinois yi xañ la ko ci Abdoulaye Wade ba ci Macky Sall Macky Sall de 2012 à 2022 c' est la première fois mu perte ay élection Pikine xam nga la moo ko waral 10 minutes de Pikine yi moo tax mu perte 12 communes yëpp parce que politiciens yi mu fa indi pour ñu pour ñu ñoo ko nekkal Pikine di ko liggéeyal Pikine ñooñu seen bopp la ñuy askan bi taxu leen a jóg ndax bu leen askan bi taxoon a jóg ñoom dinañ xam jàmbatu Pikine bu baax a baax a baax parce que lu toll ni Pikine armée yi fees armée yoo xam ne am na 70 ans day fees mais armée yi màggul fu mu nekkoon la nekk. boobu ba tey am benn mouvement bu nekkoon biir Pikine di kaas tudd sama sama armeel sama jox ma sama suuf ma yokk sama armeel am benn leader bu ko jiite woon ñu ngi ciy xeex di ci xeex ba état ba président réagir de génnee décret joxe 4 hectare si 4 hectares yooyu noonu dafa amoon benn entrepôt bu fa nekkoon benn indien buñ ñu ko jaayoon maire maire Pikine Ouest moo moo ko jaayoon ay ay indien ndax euh, armeel mi ngi nekk commune de Pikine Ouest yàlla def ñu ci xeex di ci xeex ba président jël décret ne dinañu jox 4 hectares yi nekkoon foofu di def si armée yi mooy si armée yi joxe ba ci àll bi nekk ci kaw techno ci kaw tali technopole bi. bi yàlla dogalee foofu ñu commencé ko raser ñu jekki-jekki arrêté travaux yi léegi bi ñu arrêté travaux yi euh, ñu gis ne euh, ñu dégg ay ñu ruumandaat ñu ne daa ba ay politiciens encore politiciens dañu ñoo toppee mboroo encore ñoo xam ne dañoo ñëwaat tegaat bët site boobu noonu président jox ñu 4 hectares yooyu noonu pour ñu bañ a yokk suñu armée parce que mooy si manquement yi laay wax daal. Pikine mhm. parce que dafa manqué de tout. parce que boo laalee fii di laal parce que Pikine li mu manqué moo bari. Mhm. mais 4 hectares yi c'est un acquis hein jox nañ leen ko. mais jox nañ ñu ko mais mënuñu see jot parce que ñun 4 hectares yi. mais armée na décret tey na. waaw décret xam léegi la moo tax ñu commencé woon di raser jékki-jékki taxaw li mu la wax mën na un mais bu doon volonté am nañ ko volonté parce que armée Pikine dañuy tegale néew yi léegi dañuy tegale néew. pikin nga la mën na ma seere. Pikine dafa fees. fees na mais fu fees. parce que waa Géejawaay amuñu armeel aussi pikin la ñuy suul te loolu tamit loolu loolu du yoon parce que dëkk bu toll ni Géejawaay amul armeel ñoom te galoon nañ benn benn espace bu rëy pour pour armeel ay hommes d'affaires encore ñoo tourné waat ñëwaat jëlaat suuf soosu noonu. jot nañ ko suuf ñaari nit ko. Mm-hmm. xam nga mais ñun nag. dafa jot pikin maanaam suñuy soxla saafara en plus pikin dafa bëri chômeur. Hmm, ci partout dans le te armeel yooyu nag dinañ ci xeex nag lu bu ko jaree suñu bakkan dinañ ko fa bàyyi ndax armeelu Pikine dinañ ko yokk mais yow yaa ngi naan dangay ngay yóbbu da ngay déclassifier forêt mbaaw xaw ma ñaata hectare yóbbu fa armeelu Pikine déedéet am nañ espace balaa ngay dem mbaaw naan da nga fay yokk yóbbu ay armeelu Pikine yokkal ma li des ci àll boobu noonu mooy lu président quatre hectares le problème des cimetières de Pikine il a été réglé bi président defee décret décret keneen ku def obstruction devant yoon mooy dal ci kawam fudd ndiggam bu baax copain pour man man li ma ciy gis pour man arméry yi c'est résolu non man li ma ciy gis mooy tey jii nii kenn ki nga xamante ni moom la mooy responsable bi c'est le maire de la ville de Pikine muy Ablaye Timbo parce que moom dafa góorgóorluwul ci lu bari. da ngeen ko da koy dóor rek. non comme ni ñu koy waxee dóor bi moom tàmbali na. Pape Sidi Pape Sidi dóor bi tàmbali na. wane na bërki démb ci élection yi danoo bokk benn yaakaar lañ amuñu benn vito bureau de vote bu ñu am benn bu ñu gañe benn amul. parce que jeunes yi dañu conscient léegi xam nga bu njëkk ñun Pikinois dafa am bët bu ñuy xoolee dañuy ñëw ne booy dañu am ay problème parce que gis nga boo nekkee boo yàggee ci chômeur bu nit di la jox xaalis ni da nga yàkkamti jël loolu noonu mais léegi nit ñi dañoo yemale lekk mbiskit ak naan ndox dem tëdd seen kër pour changement wu dëkk bi waxuñu sax Pikine mais Sénégal ñi nga xamante ne la yàlla may ñu am ay ndombay tànk nañ di xool seen diggante ak seen boroom te xam ne nit ki gor moomul tàllal loxo bu yàggee ga séngéem te comme ni ñu koy waxee conscient nañ conscient boo xam ne Pikine dina changé changé bi wan nañ leen ko bërki démb dañoo vote sanction lañ def parce que lu ci mel ne tey banlieue bi man dama ne tey jii parti au ñoom dañoo war a respecter waa banlieue bi parce que lu ñu soxla fa lañ koy wutsee. moo tax la waaw am na benn affaire boo xam ne bëgg naa boo xaw ma ndax ndax question bi dina ma day maladroit. Mhm. wala du maladroit. Mhm. mais c'est il faut loolu dafa war a dafa war a da ngeen ko war a leeral yéen ñi dëkk Pikine. Mhm. boo demee ne da boo déggee ne i Pikine saa boo seetaanee benn tànn biir wala benn sabar. c'est-à-dire waxuma ne ñiy def loolu baaxul. mais dañoo askan ne Pikine fecc. kaf foo ree maanaam Pikine fo dong moo fa am. à part fo ak lamb. waaw ah, non waaw loolu la ko en fait à bu ñu nee Pikine fo la lamba fecca point te man Pikine am naa ñoo xam ne ne xam naa leen mais ay borom bopp lañ Pikine par exemple président AS Pikine daanaan la si liggéey. donc boo jëlee genre personne intellect l'intellect pikinois feeñul mais dañoo gën a fësal li nga xam ne ne mooy po bi est-ce que loolu tamit nekkul lu leen di somal non comme ni ñu koy waxee loolu noonu boo gisee tey jii nii mooy li mooy comme li ñu lay wax nii rek mooy jot gu bari gi. Mhm. jot gu bari mën na dugal nit ci lu ne. waaw te nit ki bu baree jot. yaakaar naa ne day jàpp ne sax dem ci lool soulagé wu moo koy gënal. Mhm. mais tey jii nii loolu noonu tey jii nii comme ni ñu koy waxee wax nga ko léegi léegi. lu ci mel ne Pikine dafa bëri ay kàngam. waaw mhm. tey man mën naa bañ a bokk ci kàngam yi parce que man CM2 laa parce que lu waral loolu noonu sama papa professeur science physique man mii di wax ak yow je suis dans une famille ne ay jàngkat lañu. mais damaa teel a bëgg jàppale samay waajur ma teel a génn suñ kër dem uti ji néeg teel a dem for ay weñ pour jaay pour mën a jàppale pa bi ci dépense bi parce que comme ni ko ci ay kër famille lañ yaroo ñu tey ji nii ki ma àndal sama frère bii ni nga xam ne tey c'est un diplômé te amul Pikine la majeure partie des jeunes dañu am ay diplôme mais comme ni ñu koy waxee dangay dem ba da nga fàtte sax statut esthétique esthétique intellectuelle walla moom lu tax nga koy fàtte mooy tey jii ñi nga naan sax tey tey ay fecckat lañ yooyu la majeure partie dañuy am ay diplôme mais dañuy dem ba ci loolu noonu la ñuy amee seen gagne a dundalee yu seen waa kër mais tey jii bi moo war a dimbali nit ñi ci loolu xam nga dañoo sonn ci benn affaire mhm. mooy tey jii da ngay wax sax politiciens yi naan dañ lay jéem a mere kii on s'en fout mhm. ñu ànd ak yow bul s'en fout waay waaw boo déggee ma wax loolu parce ñu mere la ne mais nit ki bu dee danga dëkk ci gox ah nga fexe ba gox bi tey fal la yow xoolal sa diggante ak suñu borom nga am loo fa liggéey bis boo fi jógee sax ñu ne sa sa doom bu rombee sax ñu ne kat sa papa def na fi lii mais Pikine xoolal tey jii nii lan moo fa changé Pape Sidi tey jii nii ki nga xam ne mooy ki nga xamante ni mooy président bi nii Macky Sall président Macky moom wax ki naan la doon ñëw vacances moom léegi na jël loolu noonu rek. def analyse ñëwaat fa xool ndax dara changé na dara changé wu léegi man wax naa la ne la. Pikine am ngeen ci diggante bi arène nationale. vi ma ba ma lim ba ma lim ba ma lim ba ma lim su ma paree nga wax. xam nga lu tax soo waxee arène nationale. infrastructure la boo waxee loolu xam nga lu tax du neex Pape de la nationale numéro une euh, à de euh, buntu Pikine mooy pont bi. léegi boo dikkee ba si fu xel comme bâche nekk mooy boo dem cité euh, Lobat Fall am na benn tali bu dugg noonu te dégg naa dafa def Pikine euh, maanaam xam nga ñun xam nga moo ñu indi fii dëggantaan mhm. développement mhm. maanaam lan moom manqué Pikine lu ngeen bëgg Pikine xam nga lan leen bëgg mu juge fa mhm. taux de chômage bi dafa war a bese waaw fii Sénégal ñëpp ñoo ko non Pikine da cee raw Pikine mën naa ne quatre vingt quinze wala quatre vingt dix pour cent de la jeunesse pikinoise yu hmm, si ëpp c'est des lan moo ko waral parce que ñun dañoo am ay autorités yoo xamante ne ñoom mooy li ma wax léegi seen poste lañ ci nekkal maire de la ville de Pikine man li ma fekkee ci Daouda Niang Ndiaye ci Pape Sagna Mbaye ñu nekk maire Pikine ba ci Abdoulaye Timbo mosuma fekkee lu ñu inauguré wala mosuma fekkee projet bu ñu teg boo xamante ne ni dina indi maanaam benn benn affaire boo xamante ne jeunes yi am ci lu ñu mën a jàpp ku mel ni maire maire Barthélémy Dias politique ñu nag suñu yoon politique ñu ñun ñun nous sommes apolitique mm-hmm. mais dinañ jël ay exemple paradoxe ku mel ne Barthélemy Diaz exemple jël na ay moto trois roues jox ko jeunes yi nga xam ne ñoo nekkoon euh, Grand Yoff di dawal ay charrette wala ay dakaar yooyu noonu ñooñu noonu au moins dinañ mën a soutenir paa beeg maire bi parce que dama na ji boo xoolee Pikine ba léegi da gis ndaw lu am plus de trente ans sa papa moo la yor ba tey. léegi yow man dama lay jox benn affaire boo xam ne man maa si teg sama bët te lu ñu def tëngeej la mu réussir. Mhm. Mor Tall sànq dafa wax ne. Mhm. de kër de. buntu croisement Cambérène ba. Kër Massar ba Kër Massar ñaata entreprise 27 27 entreprises. waaw yéen da ngay yow da ngay recenser. Mhm. les diplômes. Mhm. des boy nekk Pikine. Mhm. ngeen dem si vingt 27 entreprises yi. gis leur DRH. leur demander de manière très élégante. benn quota boo xam ne dina leen mën a permettre au moins ngeen booy Pikine yi di mën a xëy foofu soo demee 27. 20 yi tontu la jox la quota au moins benn 25. ça dina la permettre nga am au minimum benn mille yoo booy yoo placé. certes nag. mais suñu mais certes problème bi moom laa doon wax. le problème mooy la population pikinoise un million la ba pare ñëpp xam nañ ne Sénégal. plus de cinquante pour cent de la population a à moins de trente cinq ans mais mooy gis mooy Pékin c'est la capitale la plus peuplée du monde. booy Pékin donc en li nekkoon ci habitants ci Pikine. ak boom démographique bi ni mu demee yokk na même léeg-léeg mën na am yokkute sax ci wàllu cadre de vie bi parce que bon il faut reconnaître que ce gouvernement là mhm. ils sont plus dans defar dëkk bi mhm. waa dëkk bi xaar en attendant xëy na dinañ defar waa dëkk bi mhm. mais bon euh, man pour man ñi ma xam ci ñu nekk entrepreneur ñu gën a bari mais Pikine lañ dëkk dëgg la c'est les jeunes entrepreneurs par exemple entrepreneur ma yéen a ngi koy wax ne café Touba lay jaay pour man loolu entrepreneuriat la xëy def benn affaire boo demee marché boo demee syndicat. Pikine mënoo romb si ale ak lu mu luxe luxe. te gisoo maire bu teg taabal di jaay ay affaire am donc même su fekkee revenu yu bëriwul. Mhm. entrepreneuriat bu fekkee dañuy xaar ci état bi kese mu jox ñëpp liggéey. Mhm. dinañ fi yàgg lool te ànd ko wér. dëgg la mais man ki borom Tuubaa loolu maa ko xalaat. Mhm. ñun xaaruñu état. mais dañoo bëgg accompagnement état ñun xaaruñu ko de. parce boo xoolee Mortala du ma bàyyi màdd saa su amee campagne mu madd. ñun jeune Pikine gis nga ay parcelles yéen yow parcelle nga dëkk. charrette yi lay romb parcelle naan ay wa madd ay wa madd ñun ñii la. ah ñun ñooy jël suñu moon yi dem syndicat jënd daama madd yàpp ko ci charrette ñun ñoo ko ñun ñoo koy def ñu waa Pikine. booy ngay gis ñu yor charrette yooyu. Mhm. ñoo yeneen waa Pikine ñooy jël ay charrette. période madd waa aussi. non waa parce que syndicat lay wàcc. ñàkk solution bu ñu amoon solution duñ dem man mii. def naa ko ba tàyyi mhm. jënd naa sa jël naa sama charrette mhm. fay fay journée sept mille wala six mille mhm. borom charrette dem jënd sama màdd yàpp dugg géejawaay parcelle feneen ak feneen bu xaal ñëwee ma defaat la même chose mais campagne yooyu day jeex màdd ay trois mois quatre mois mu jeex ñu toogaat benn trois mois xaal ñëw nga def ko benn trois mois quatre mois mu jeex. yéen daal ay accompagnement ak ay solution ngeen bëgg. que tamit ñun. amul sapeur suñu préfecture lan la amul Pikine. amul sapeur amul préfecture amul suñu préfecture Géejawaay la nekk Géejawaay. amul Sénélec. ay Sénélec gu xur dabb quoi. non am na SDE am na SDE am na SDE am na SDE yow déggoo Géejawaay nga dëkk yéen waa Géejawaay da ngeen teg bët. waa préfecture non mais Géejawaay xam nga lu tax Pape Seydi exemple Pape ah. Seydi Pape Seydi lycée bu digne de son nom biir Pikine amul lycée Canada la ñu sàkkatoo naan lycée Pikine te Canada foofu Géejawaay la Géejawaay la waaw pikin biir Pikine Pikine amul lycée amul lycée tey fi ñu tabaxal arène nationale bi foofu lu tax defuñu fa lycée a mag Sénégal bi Pikine mooy yéen léegi yéen moom laa lay wax la problème mu Pikine bi ñu collé a ñu ne arène nationale ba ko yóbboo Pikine moo taala foog nga nangu li ma la wax ne dañ ko collé Pikine te du réalité Pikine xam nga gars dañuy wax ay waxul làmb muy fobi xam nga tey bu ñuy wax ay làmb bu ñu jàpp ne tey ñun pikinois yi dañoo accro ci làmb benn mbir la bu bokk ci sport boo xamante ne dañ ñu koo indil foofu noonu tey comme ni ñu koy waxoon la di oe foran ah, dañ ñu sonal tax ñu sonal ñu mooy moom chaque jour ñu jooy non sonal ñu fa dëkkee foofu noonu tey dañ am ay parents am ay xarit mais tey ji bu fa làmb amee da gis ne tey jii ni dañuy sonal tey ji ñu fa dëkk mais tey jii ni état bi na jéem a ci loolu noonu comprendre leneen li ñuy wax comme ni ñu koy waxee yaa ngi koy wax léegi-léegi Pikine lu toll ne Pikine war na manqué Camp Sapeur lu toll ne Pikine war nañ préfecture ñun ñu paas dem Géejawaay te dem te Géejawaay Pikine moo ko jur. Ah, tey jii nii lu ci mel ne tey jiini exemple comme ni ñu koy waxee boo duggee ginnaaw raay ñu defal leen benn bunt boo xamante ni tey jii nii bu tawee. bu ah. ndox mi bu ndox mi suulee kan canal kii bi teer bi rek ñoom ñëpp dañu mujj sib si la ñuy génn jee. Euh, dañ ma signalé ne ma waxtu bi jeex na wax dëgg yàlla mhm. lii nga jooy ci Pikine lii ngeen jooy ci Pikine yéen ñaar parcelle mi bu la ko waxaloon ci parcelle nga dee. parcelle presque neuf la amul hôpital. Mhm. benn district sanitaire bu tudd hôpital Mame Abdou moo fa nekk. boo feebaree. parce que ñun sant sant lañu Dominique kii koo xam <laughs> te Dominique ku ne xam na la fan mooy Dominique. <laughs> benn benn tuxu dara amu fi dara amu fi maa maa ngi nuyu Baye Ali Cissé. <laughs> soo soo sunu mag yooyu léegi ma dañuy def dañuy tour de table parce que. jeex na euh, waaw jeex na. bu nekk rek mu wax sa mot de fin ak li nga sàkk <clears throat> boo si ñëwee temps bi de de moo tax. waa parce que comme naa dem si kii bi rek. comme li ngeen li ngeen bëgg rek. waaw ba tey comme ni ma lay waxee c'est-à-dire mise à part problème yooyu yëpp. waaw wala bi problème yëpp amee ba pare. waaw dañoo jël benn décision. waaw bon dañu ñëw pour dañuy syndiquer. dañuy syndiqué syndiqué ñu créé syndicat. instant bi nii suñu parrain mooy la CNTS ñi leen remercier de passage mooy euh, Modi Guiro ak euh, Lamine Fall. Mm-hmm. ñoom ñu leen remercier ñoom instant bi nii ñu teg ci code jël nañ tam avocat am nañ conseiller juridique. Mm-hmm. beneen bi ma fàtte mooy cas d'avortement yi nga xamante ni mi ngi am sax ci cabine jigéen yi nga xamante ni dañuy ëmb di liggéey. am seen ay borom kër bàyyi leen ñëw di liggéey di fanaan mm-hmm. cabine. am ci ay cas d'avortement yu bëri. ñi nga xamante ni ñoo nekk ci service ETC bi comme partie carte bi ñu nekk ñoom bu ñu soxlaa seen seen téléphone la ñuy ko léegi léegi inspecteur du travail jox na léegi nag daf ñoo joxaat rendez-vous. Mhm. su ma juumul teel a mercredi. waaw suba jeudi. suba jeudi Pape Sidi nee suba. inspecteur du travail war nañ demaat rencontre ak inspecteur parce que convoqué nag convoqué waat. Mhm. deux fois euh, ñeneen ñi ñëwuñu. Mhm. employeurs yi ñëwuñu mais cette fois ci suba beneen bi mooy ñu ngi préparé tamit benn point de presse. mais dafa am loo xamante ne dañ koy exiger mooy ñi nga xamante dañ leen licencier instant bi d'une manière abusive. moo ñuy réintégré waat leen à l'immédiat loolu lu ñuy ñaan. Mhm. dañ koy exiger. ñu indiwaat leen. Mhm. ñu continuer suñu suñu suñu suñu signer suñu protocole d'accord mhm. bi. te ñu ngi invité ñëpp tamit ci point de presse bi nga xamante ni ñu ngi koy préparé bu ñu paree foofu nag li nga xamante ni dañ koy wax te ñoom defuñu ko. boobaa boobu ba ñu ngi alerté. mais nag on va essayer de passer à la vitesse wala on va devoir passer à la vitesse supérieure. incha allah incha allah jërëjëf euh, te ñun nag dinañ imposer respect parce que on on a constaté un manque de respect notoire à l'endroit des Pikinois de la part de de, de nos autorités étatiques te loolu noonu dinañ ko xeex parce que li li koy wane xeex nañ ko sax à ndax douze communes yi ñu perte ñun la ndax nee la suñu mouvement dix minutes de Pikine douze communes yëpp am nañ fa ay représentants te ñoo yor poids bi ñoo yor doole ñu ñooy fal ñooy fole à partir de maintenant képp ku falu Pikine lépp waxuñu président lu muy nommé de lu ñuy falaate ñun ñoo la koy fal. te président nag xam loolu képp kum ñuy yónnee pour mu liggéeyal ñu Pikine ñun bëgguñu sax président yónnee dama bëgg moo en direct mu wax ñun en perte ñu wax ko manquement parce que ñun fa indi pour ñu liggéeyal Pikine seen poste moo leen tax a jóg. jërëjëf te ñun suñu gox la ñu am. Mhm. tey jii gis nga li ñuy dund nii ba am âge bi ñu toll bëgguñu suñuy raq yi di ñëw dund ko. Mhm. wala suñuy jarbaat dund ko dañoo soxla Pikine am beneen image. Mhm. ñu bàyyi image bu bongo maan yeeg fecckat yeeg sabarukat yi. dañoo bëgg Pikine am image boo xamante ne maanaam. l'intellect pikinois l'intellect pikinois. merci beaucoup voilà c'est c'est bi 10 000 Pikine ba figure emblème figure Pikine yi ñu ngi ci waaw ñëpp ñu ngi ci te ñu ngi ciy ñu ngi ci mais ñu ngi ciy ñëpp parce que boo xoolee tey jii nii comme ni ko mhm. ñëpp ñu ngi ci focus instant nii boo xoolee tey jii nii dañuy def ñun chaque mois que jëfee. Mhm. dañuy am secteur bu ñuy dem. Mhm. boo xoolee jot nañu def trois sorties suñu beneen sorte bi ñu ngi ko war a def lendemain tamxarit ginnaaw raay mhm. tey jii nii boo xoolee tey ñu ngi leen ñu masawu ci taw bi nga xamante ne tey jii bi mu fa tawee bëri na kër yoo xamante ni am na ndox mhm. tey jii ñu fasee na fa dem taxaw ak ñoom ñu xam ne suñu benn famille lañ li ñuy waxaat ci 10 minutes de Pikine comme ni ko sama frère waxee jël nañ suñu matukaay comme ni ñu koy wax am na ci loo xamante ni dootuñ ko négocier mhm. lépp li nga xamante ni dañ ko war a jëli ji dañ koy jëli ji comme ni ñu koy waxee mooy président wu sénégalais yi moom lañ amal suñu kàddu di ko wax nañ ñëwal xoolal boppam xam ne tey moom doon na ñëw wàqi naan vacances kon tey jii na ñëw xool ndax dara changé wu fa dara changé wul Pikine te ñu ngi wax autorité yi nañ liggéey mhm. parce que seul le travail paye mhm. ku liggéey mooy fayeeku ku liggéeyul doo fayeeku wasalaam jërëjëf Pape Sidi ba àllarba ak jàmm ba àllarba ak jàmm incha allah rabbi di ñaan yàlla plaidoirie yi waa dix minutes de Pikine di ñaan yàlla plaidoirie surtout les le personnel de retour la Touba gars yi nañ bàyyi xel ñii waaye nañ bàyyi xel ñii alaaji dëkk bi métti na trop absi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm Sénégal na xari wu la defar boo gisee ndaw ñoo xam ne dañuy toog tollu ci seen digg doole di yuuxu naan damaa war a liggéey wala liggéey bi may liggéey damaa bëgg ñu wekk ma